salaamaaleykum samay mbokk samay soppe samay am di jàmm euh, man la Sylvie nekk fii Espagne plus particulièrement dëkk bi ñuy wax Granada ma doon ñëw def tey benn vidéo bu ndaw aunque j'ai pas l'habitude sax de faire des vidéos mais vidéo bi may def tey c'est une vidéo qui me droit au cœur vidéo bi nga xam ne c'est en guise de reconnaissance vidéo bi nga xam ne cant ak ngërëm la parce que dama toog fan yële ak euh, ñëpp xam nañ problème yi bi nekk di daw ci àddina bi yëpp maanaam pandémie bi liggéey yi taxaw nañ les situations ont changé ñii am na ñu nekk ci situation yu xaw a critique am na ñoo xam ne sant yàlla yàlla mu ngi leen di jàppale ba tey ma toog ba ñu ñëw fëgg sama porte fëgg sama porte bi may ubbee à ma grande surprise muy association des mourides de Granada su may wax sax nag sama xol dafay tooy parce que dafa nekk geste boo xam ne dafa sori ci man lu tax mu sori ci man mooy man je suis chrétienne chrétienne la ñi ma fi nekkal depuis des années des années xam nañ ko du ma musulman du ma murit ngeen di ay murit yor seen association di def seeni daayira tous les lundis di fixer seeni cotisation ubbi seen social et j'espère que social bi c'était pour yéen ñi nga xam ne yéenay murit yi am sa problème ñu jàppale la ci mais bi problème bi amee ngeen jël seen xaalis jëndi seen denrée alimentaire di ko séddale séddale boobu vous avez pensé à moi mu doon loo xam ne ça me va droit au cœur parce que bu leen neexoon ngeen dëgg la naam sénégalaise la ñoo bokk sunu Sénégal mais duma musulmane duma murit ma cotiser mais dama toog ba ngeen andi seeni i bagage mu bari lool lool lool lool ñëw jox ma ko te da ngeen ma koy jàppale te ngeen ma koy jàppale parce que xam ngeen ne man dong maa fi nekk je suis avec mes deux enfants yi nga xam ne ay xale lañ la plus petite elle a cinq ans mu nekk loo xam ne daf ma marqué billaay daf ma marqué daf ma marqué daf ma touché parce que nag euh, bëri nañ fi ah bëri nañ fii tarixa yëpp a ngi fi diine yëpp a ngi fi mais peut-être da ngeen def loo xam ne man daf ma yegg fa sori sori sori sax moo tax nag ma ne dinaa def une petite vidéo pour gërëm leen di leen sant di ñaan yàlla yàlla na leen ko yàlla fay que le Seigneur vous le rende au centuple man de wax dëgg fa yàlla gën naa am fit gën naa soulagé wu ndax ndax des fois nag da ngay toog nga tiit surtout si tout es toute avec tes enfants sa xel dem nag si dee ndax dee ak dund ñoo ànd mais da ngay xalaat man su ma demee samay doom ku leen di toppatoo man su ma demee samay doom fii début bi ba à fin kan moo leen di jël en soutien yow en personne ku lay taxaw tey ba nga mën a yegg ci say famille mais gis naa ne jaru may ci jaru may ragal. Je sais que vous ma porte dans vos cœurs. Je sais que je fais partie de votre communauté. gis naa lool gis naa lool moo tax nag vidéo bi du sori ndax sama xol fees na maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax merci merci pour geste bi ngeen def da ngeen koy jëlee lu tuuti mais ci man lu rëy la parce que bu fekkoon koo xam ne musulman la comme yéen garaawul wala murit la dina xam ne da cee bokk mais man dama ci bokkul ci yéen. musuma cotiser suma participer ci seen dara mais lii am seen xel dem ci man fa nekk lu sori ci man mu yàgg di ma travailler nag bu baax moo tax ma ne dinaa def vidéo bi pour vous remercier kontaan naa trop ci dañ ñaanal weeru koor bi ñu dégmal lépp lu ngeen ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu pandémie bii di dëmbee àddina yàlla nañu ko yàlla tegg le plus rapidement possible maa ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm te di leen xamal nag gest bi sori na torop torop ci man billaay sori na torop waaw di leen témoigner nag toute ma gratitude vraiment kontaan naa torop jërëjëf yal na leen yàlla fay te ñu xam ne nag on a une bi nga xam ne Sénégal rek la am mooy dialogue islamo-chrétien waaw man de vraiment wan ngeen ma ko wan ngeen ma ko maa leen di gërëm bu baax a baax di leen sant merci beaucoup merci une fois de plus encore merci